بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa tey ñuy jël ñetti aaya aaya 150 151 ak 152 bismillahi tabaraka wa taala ay nu nuy jàngal ñeenti mbir mbir yooyu bi ci njëkk mooy taqrir kufrul yahud wan nasara ñetti ay yi nekk sunu kanam lim ñuy jàngal bëgg mu sax des ci ñun mooy nu yëg ne yahud ak nasaraan ay yéeféer lañ duñu ay jaamukatu yàlla ay yéeféer lañ yàlla dafa saxal ne ñoom ay yéeféer lañ maadaama sunu borom moonu wax ne yahud ak nasaraan ay yéeféer lañ kon ñun ban pas-pas lañ ci war a am lu dul dëggal li nu sunu borom wax lan moo tax yàlla ne ñoom ay yéeféer lañ mooy li fasaadi aqaidihim seen pas-pas moo yàqu ndax ki fas ne yàlla am na doom ki fas ne Isa dafa njaaloo Maryam dafa njaaloo ki fas ne moom doomu yàlla la mbokk yi ndax kooku pas-pasam baax na yahuud yi dañoo fas ne ñoom ay doomu yàlla lañ loolu lañ wax nahnu abnaullah wa ahibahu nasaraan yi gëm ne Isa doomu yàlla la kon seen pas-pas yu yàqu yooyu moo tax yàlla def leen ay yéeféer kon yahud ak nasaraan ay yéeféer lañ inna allazina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikin fi naari jahannam yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo weddi inna allazina kafaru la wax ñan la ci njëkkalim min ahlil kitaab ñi yàlla joxoon ay téere mooy yahud ak nasaraan kon ay yéeféer lañ ndax seen pas-pas yi ñu fas baaxul moo tax gis nga nit su fasee dara te loolu mu gëm muuteeg li charia wax rek génn ci lislaam ñu ngi may woon démb benn vidéo benn waay boo xam ne dane sëñ bi moo gën moo gën yonent yi Muhammad mii ngeen di wax sax sëñ bee ko gën ngeen defa ne kooku jullit la yéeféer la ku gëm ne am na ku gën Seydina Muhammad ci xeet wi rek yéeféer nga ku gëm laa wax ne seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam am na ku ko gën ci xeet yii nu nekk ak xeet yi peese ak xeet yi ñëwagul ak ñi dee yéeféer piir ga booy dee dugg safara sa pas-pas yàqu na loolu tax bala ñuy fas dara nañu xool ndax lii lislaam nangu na ko ndax lii pas-pas bu wér boroom pas-pas bu wér dina gëm lii nekkul rek lu la neex ci mbedd bi nga gëm wala lu la wax rek nga dëggal déedéet yàlla daf laa jox diine ne la nii nga may gëmee nii soo ko gëmee neneen rek pare nga ci ahlul kitaab bi leen yàlla joxe alquran seeni téere tawraat ak injil ne leen nii la yàlla wàcc alquran ne leen nii la ñu weddi yàlla mu ne ñi ay yéeféer lañ wa butlaani amalihim léegi nag nit ki bu fekkee yàlla génne la ci jullit yi yàlla ne ab yéeféer nga ñu ne yàlla lu tax mu ne kii pas-pasam baaxul xam nga troisième bi ngay njëkk a pertaat mooy lan sa jëf da nga koy perte lépp loo def baaxul wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur lépp loo def soo demoon Màkka juróom-ñaar fukki junni yoon nga tabax ay jàkka yu dul jeex nga bënn ay teen ah yàlla du ko nangu sa jëf yëpp habitat amalum la yàlla wax seen jëf yëpp sippeeku na yàqu na moo tax ba musiba li gën a bon mooy bokkaale yàlla wala nga pas-pas fas bu bon suñ la ko doon jox misaal dañ lay jox rek jëlal gerte nga lekk ko booy lekk gerte boo tiimee gerte di lekk ndax da ngay lekk benn wann lekkaat benn wann ku may tontu ah mënul nekk balaa ngay wann nooy def da ngay boxañ lu ma 30 sànni sa gémmiñ nga yëy mu neexandoo mokk ciy gis nga 50 yooyu nga gëm moxoñ ciy boo ci dugalee benn bu funax wala benn bu nëb nu muy def ah pourtant 50 gerte nga nga nga wan noonu de nga yéeyoon de mais benn boobu waru mun a changé waaye xoola benn bi day changé goût bi ci gémmiñ gi yàq li nga nekk li nga lekkoon noo koy def ah lu tax nga yàbbi ko te benn kese la moo tax gis ngeen pas-pas bu bon baaxul sa jëf lay yàq ni benn bu nëpp di yàqee moo tax ahlul kitaab ñii nii yàlla ne ay yéeféer lañ ñaareel bi ñuy jël ci aaya yi ñu war a jàng tey mooy kufru man kazzaba billahi wa rusulihi weddi képp ku fenloo yàlla ak yonentam walaw fi shay'in wahid mimma wajaba al imaanu bihi bu dee benn mbir boo xam ne da yàllaa ko santaane yàlla moo ne lii lii la nga ni ah waaye dëgg dëgg nag yow yéeféer nga julli nga naan ah julli day tax jarut a def yéeféer nga woor nga naan lii kenn waru ko def wala taxut a nangam nangam di ci indi ay lay bañ ko def yéeféer nga yàgg na benn mbir rek yàlla bu la santee téeméeri mbir nga def juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ñaataa des ñu ne la benn bi du tax defee ko nga ne ah garaawul yéeféer nga yàlla bu la santee téeméer nga def benn ndax boobu rek nga mën texe nga parce que boobu nga loolu nga mën du benn de lee da nga koo weddi lii da nga koo gëmmee mënoo koo def gëm nga ko soo amoon kàttan gi léegi nga def ko mais mënoo ko def yàlla def lay bindal tiyaaba ne def nga ko waaye yàlla sant la téeméeri mbir nga def juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent ñu ne la waaw julli nag nga la na julli day moom wax dëgg yàlla nag moom moom daanaka daal man dañ ma koo wàccee dañ ma koo teggil yow ab yéeféer nga jarul ngay sonn kii yéeféer bu ñuul kuku la loolu mooy pas-pas bi butlaan kufru weddi man kazzaba billahi képp ku weddi yàlla war wa rusulihi ak yonentam yi walaw bi shay'in waahid donte ne benn mbir kese nga weddi te mbir moom nga weddi dafa war ñu gëm ko yow yéeféer nga moo tax mbokk yi sunu diine bi du lu ndaw mbir yi ñuy foowe nii nga xam ne réew mi tey daanaka ku neex gëm ku neex weddi ku neex wax lu la neex ku nekk diine bi ñu jël pëcc ko pëcc ko waxoon naa leen samedi passé diine bi dañu ko def comme sabar bu tas da ngeen sabar buy waaj a tas nu muy mel nu muy mel noonu lañ def diine lislaam bi loolu nag diine bi dafa am fu mu tegu diine bi dafa am fu mu tegu dafa am ay raay yu mu tegu su ko wàccee rek du dem diine baa ngi tegu ci alxuraanu yàlla bi ak sunna yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lépp lu nu wër guddi ak bëccëg fekkuñu ko ci alquraanu yàlla bi fekkuñu ko ci sunna yonent borom xam-xam yi waxuñu ne lii baax na wala baaxul bu yeboo ñu def ci ndànk bu yeboo ñu bañ cee sonn waaye lépp luñ ci fekk yàlla wax ko yonent wax ko borom xam-xam yi ñëw feddali ko nga sànni ko fële ca xaj ndax naan samay maam ak samay baay ak suñu waa dëkk comme li xew léegi Sénégal boo waxee ñu naan bu ñu kenn importé loo diine diine importé waaw Sénégal lu ñu am lépp dañ ko importé di lan lañ am même sunu maam diine maam yooyu ñuy wax ne bu ko kenn dañ ko importé tarixa yi ñëw fii ban moo fi juddu yëpp lañ importé tarixa sax dañ ko importé wala da ngeen bu nga xam tarixa yi seen cosaan jàng leen téere yi di ngeen xam ku nekk foo jëlee sa bos dafa am ku beesalaat rek jël peinture bu weex la woon mu yokk ci ay couleur xam nga peinture bu weex mun nga ko jaxase ba mu indil la yeneen mun nga ko def jaune mun nga ko def nangam peinture bu xonq mun nga ko def noir sotti ci colorant rek gars yi dañoo coloré rek waaye fii lañ fekk diine bi diine yàlla bi la ñu jël def ci ay affaire ay affaire ay affaire ay affaire ku nekk génn jaar nii ki génn jaar nii ñii peintre ko mu jaune ñii peintre ko mu xonq ñii peintre ko mu weex ñii peintre ko mu bleu loolu kese la lépp lañ ko importé waxuma laag nag addina bi kon dara amu fi yëpp juddoowu fi ñetteel mooy butlaanu imaanu man yuminu bi baadu rusul wa yakfuru bi baad képp koo xam ne danga gëm yenn yonent nga weddi benn yonent sa ngëm yàqu na yàlla dafa dàq ngëm képp ku gëm lenn ci yonent yi nga weddi kenn ci yonent yi yàlla nee na gëmatoo moo tax jàng ngeen ci amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lu mu ci teg laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli duñ ko taxale yonent yi 124 mille lañ soo ci weddee kenn safara nga jëm kenn kenn kenn soo ko ci weddee li nga doon def yëpp yàqu na yàlla bëgg séef yonent yëpp ngay boole gëm yonent yëpp loolu la ñu diine sant moo tax mu ne butlaanu yàqu na imaanu ngëm man yuminu bi baadu rusul ku gëm lenn ci ay yonent wa yakfuru baad mu weddi leneen li comme ni mu amee ci yahudi ak nasaraan yi yahudi dañoo gëm Muusa weddi Isa ak Muhammad yahudi laa wax dañoo gëm Muusa weddi Isa ak Muhammad nasaraan yi ñëw gëm Muusa Isa weddi Muhammad jullit ñi ñëw gëm ñett ñëpp waaw ndax loolu la leen seen dina sant moo tax boo duggee ci kër jullit di fekk fa ay Muusa yu dul jeex soo duggee ci kër jullit di fekk fa ay Isa yu dul jeex soo duggee ci kër jullit di fekk fa Ibrahima yu dul jeex yuus mboolem yonent benn waay nee na ma waaw waaw oustaz wax gars yi duñ tuddee Zulkifli ma ne ko ah ma xaw da yaa xaw ma ko mu ne pourtant yonent la de waaw ma ne ko xëy na gars yi dafa siiwul bu baax amul ay fans boo tax gars yi tuddeewu ko turam a bëriwul ci alxuraan mu ne ma gisaguma fii ku fi tudd Zulkifli de pourtant yonent la ak yeneen ak yeneen ay yonent lañ waaye xëy na alxuraan li mu leen tudd lu bari mu tax gaa yi tuddeewuñ leen du lor rek même ci saxaaba yi am na ñoo xam ne gaa yi tuddeewuñ leen parce que dañ leen xamul te xam nga nag nit ñi bu ñu amul xam-xam bu ñu jàngul téere yi bu ñu gëstuwul du ñu mën a xam par exemple xisasul ambiya jàng histoire yonent yi tey doon na garaaw trop ñaata yonent la yàlla wax ci alxuraan seen tur tey am na ñoo xam ne tey boo leen lim la woon 25 yi da ngay am problème 25 yi rek boo leen ko doon bëgg lim loo tey boo leen joxoon léegi ne leen def leen classement Liverpool ah Barça Real Madrid ak ban Chelsea ah waaw yooyu yooyu noonu yooyu boo leen joxoon léegi classement ne defalu ngeen teg naa portable bi da nga koy perte de gars yi nañ la ko dóoral ba dóoral la plat remplaçant yi ak entraîneur bi mais ey boo fi joxe woon 20 25 yi NBA yi dina am ñu trouvé de mais dina diire de di nga gis waa ji naan may ma may ma rek may ma ma xalaat ma yeggali ko te boo ko doxoon équipe nationale Liverpool ak yooyu ay kii yooyu yooyu du du du noyyi la koy def. yal nañu yàlla dimbali loolu musiba la yal nañu yàlla dimbali mbokk yi. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu xam caaxaankat yi xamuñu nitu yàlla yi musiba la ñu xam caaxaankat yi xamuñu yonent yi. la ilaha illallah avec ça ñu ne nañ am jàmm nañ dund ci àdduna dund bu neex nañ nekk ay julit mu nekk li taxoon yàlla wàcce la xamoo ko nga réere ko wa maa xalaqtul jinna wal ins nga riire ibaada boobu nag nga ni nga ni nga ni nga ni yow gëm nga yàlla moo tax nañ def attention yenn saa yi iblis tafuñu ñu nekk ci làmb yi nekk ci football bi di ci rey sunu bopp sëgg ci teewlu ko concentré wu nga teewlu ci match bi lu gën a garaaw li ngay teewlu ci julli sëgg ku si tànk waa ji daanaka moom mooy football bu ñu jegee camp mi rek nga gis mu commencé onk yenn saa yi sax mu jaral ko bu ñu jegee camp yi muy tudd yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah bu bal bi demee mu taxawaat nooyi am ñoo xam ne dañuy zikr bu seen équipe di football di def ay azkar pour seen équipe gagné bu passé doo def azkar am ñoo xam dinañ julli ñaar rakk ñaan yàlla sama équipe na gagné mosoo julli ñaar rakk ñaanal islam jafe-jafe yu nekk na ci génn kon ñu indiwaat xel yi góorgóorluwaat balaa iblis di ñu nax na yu bari yu ñuy sàggane iblis moo ñu ciy dugal mooy yi ngeen di gis léegi xew télé yi ñuy bóof marché yi làmb ji ay caaxaan yoo xam ne amul benn njëriñ yàq waxtu la ci sa waxtu interprétation ñeenteel mooy sixatu diin al islam islam bii ñuy wax dafa wér këng mbokk yi lu wér la sixa ad diin al islami wa butlaanil yahudiya wa nasaraaniya islam dafa wér waaye yahud ak nasaraan dafa yàqu baaxatul ku ci dund ci kéeféer nga dund islam mooy diina ju wér ju yàlla wéral waaw yahud ak nasaraan baaxul yàlla loolu la ñu wax xaysu awada allahu taala al yahud wa nasara bil azabil muhin yàlla moo leen dig mbugal képp ku dem ca yahud ya wala nasaraan ya yàlla dina la mbugal moo tax seen feet yi ndeysaan tey laa dund lu métti ndeysaan waa joo xam dafa ñëw di ma kalaame doomam école mu ne ma gis nga même feet yi nii nga ñu nekk 24 ak 31 bi oustaz pour ma wax la man dama bëgg a yar samay doom 33000 la ma yàlla may ci feet yi 3000 oustaz xam nga pour man dama bëgg samay doom xam nga la laa def ma dem ma jënd leen ko ay pétard pour ñu toog ci kër gi mu ne mu ne xale bi taal pétard yi ba pare dem doxi ba une heure du matin doog a tëdd xool xool xool xawaa ji dégg ngeen ma de la ilaha illallah dafa wax loolu rek sama rongo ñi wadd mu defe ne dama koo yërëm ma ne ko loolu baax na ci yow yow amoo lu dul 30 3000 nga dem di ko jëndi pétard pétard la wax de pétard la ma wax mu ne ndax rek mu toog ci kër gi bañ a génn ko xale bi taal pétard yi ba pare dem doxi ba une heure du matin ma ne ko yeneen pétard yi muy taal la wëri comme yi jeex na waaw yaa ubbi bunt bi est-ce que loolu diine la la ila moo tax am na lu baree bari ndeysaan ci Facebook bi dafa am benn benn page benn photo bu ndaw benn benn góor bu jàpp ci loxo doomam di dem ndeysaan mu ne doom yi mu ne doom ji mu ngi jàpp doom ji de mu ngi dem mu ne doom ji mu ne doom ji dëgëral sa tànk dëgëral sa tànk de xoolal fi ngay jaar balaa ngay daanu moom moo jiitu doom jaa ngi ko topp mu ne doom ji dëgëral say tànk xoolal fi ngay jaar ndeysaan doom ji ne ko pap man de say tànk rek laay xool foo jaar rek foofu laay jaar da nga wax bi de pap man ci say tànk rek laay jaar foo jaar rek foofu laay jaar bu ma wax dëgëral la say tànk bu ma wax xoolal fooy jaar man daal yow fi ngay jaar rek laay jaar wax ji nag ñaar la de ci ku ko amul dégg-dégg doo dégg du tànk yi fu ñuy jaar nii ay tampon tànk de moom loolu la ci jublu woon waaye dégg nga li ko xale bi tontu doom dëgëral la say tànk nga topp sama ginnaaw nga nga balaa ngay daanu mu ne ko pap say tànk dong lay jaar foo taar rek foofu laay jaar moo tax il faut yenn saa yi ñuy critiquer suñu doom yi waaye est-ce que ñun def nañ li ñu war a def est-ce que def nga li nga war a def waaw boo yoree nga dum télé ci kër gi te télé bi du génne lu baax nga teg ko ci kër gi xale ba bu yàqoo ko yàq yaa ko yàq boo yoree doom te doo waxtaan ak moom doo ko conscientiser ci mbon mbonu àdduna bi ci lu mu war a xool lu mu warul xool lu mu war a déglu lu mu warul déglu ku mu war a àndal ku mu warul àndal lu mu war a wax lu mu warul wax sooy jaamu ji yàlla da nga koy bàyyi mu nelaw xale boobu bu xëyee ba nekk ponkal nekk ab nangam kan moo ko def loolu yow yal nañu yàlla sàmm kon mbokk yi yàlla dafa yàq yahud ak nasaraan yàlla dig leen ay duma ëllëg waaye yàlla dig jullit yi ci tawfiqam dana leen fay dana leen jéggal dana leen yërëm yàlla moo dig jullit yi way gëm yàlla yi ne dina leen defal jàmm bu nu deewee ba dem alaaxira yàlla neen dinaa leen fay dinaa leen jéggal danaa leen yërëm lu fi desati kon mbokk yi ci gàttal lii mooy sunu darsu tey yal na yàlla may ñu tawfiq dëgëral sunu làmmiñ ba duñ génn aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعطدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما سنبرم إن الذين كن دون يانغال ديسان دون وقت إن الذين جوغيس kafaru topp ci seeni borom xalku nanu inna allazina joo gis amanu topp ci seeni borom dexe nañu suñ borom nee na inna allazina gaaye nga xam ne ismu mawsul la de lil aqil ñu am xel la yàlla di waxal ku amul xel génn nga inna allazina gaaña nga xam ne yakfuruna ñooy weddi billaahi yàlla wa rusulihi ak yonentam yi ndawam yi weddi yàlla yemuñ ci ñu weddi waat yonent yàlla yi yemuñ ci wa yuriduna ñu bëgg ñu namm an yu farriqu ñu taqale bayna allahi diggante yàlla wa rusulihi ak ndawam yi yemuñ ci loolu wa yaquluna ña nga naan nu'minu dañuy gëm bi baadin ñeen wa nakfur bi baad ñu weddi ñeneen yemuñ ci yàlla nee na wa yuriduna ñuy bëgg an yattaxisu bayna zalika sabila ñu ut nag ci porox ndoll yooyu ay yoon yu ñuy layyee li tax ñu gëm ñii weddi ñee li tax ñu gëm yàlla bàyyi yonent yi wala lu tax ñu gëm yàlla ak lenn ci ay yonent yàlla nee na ulaayka ñii hum ñoom alkaafiruna ñooy yéeféer yi xaqan ci dëgg li leer na nañu de bu ñu yemoon fii rek taf tafsir yi leer na ay texte la yoo xam ne sans commentaire inna lazina gaa ñi nga xam ne yakfurun dañuy weddi billaahi yàlla ku weddi yàlla da nga yàlla ko parce que yàlla mooy sa borom moo la bind bi mu lay bind di la indi ci àdduna bi tàgguwul kenn du ndey du bàyyi bi ngay juddu amul kenn ku ci jàpp ba la fi yàlla di jële sa màgg kan moo ci jàpp dafa am benn waay bu xëy di la xëcc pour nga njool di xëcc dina jàppal fi jàppal fi ñu xëcc nga gudd tuuti ñu arrêté suba ñu ñëwaat yow mii xamoo noo màggee da ngay xëy rek gis sa bopp ponkal nga xëy gis yaa ngi commencé bi jaaw yenn saa benn waaye ne ma ah oustaz ma ne ko jot na nag ndax am na ay doomi grand ak jànq waaw noonu ngay nekk ba jàgg naan la e boy e grand e pa e e léegi nga dem teer waaw léegi yàlla tëral la ah ku ci mën dara kon weddi yàlla mbokk yi du du sax ngor nag lu sax jom nag weddi yàlla yemoo ci waaye wa rusulihi ñu weddi yonentam yëpp allahu akbar jamiu rusul mboolem yonent yi te ñoom xam ngeen ne yonent yi ay tànneef lañ yàllaa leen tànn xiyaarun min xiyaar yàlla dafa loolu ñu naan li ngeen di wax équipe nationale bu ñu koy tànn nu ñuy def dañuy sélectionné meilleurs joueurs yi allahu akbar yàlla dafa tànn ñi gën a baax ci nit ñi mu def leen ay yonent ñi gën a baax ñoo xam ne kenn xamalu leen lu bon musuñu ko def seen xel sax musu ci dem yàlla def leen yonent ay nit ñëw di leen weddi di weddi yàlla yamuñ ci loolu waaye ñuy weddi yonent yooyu yamuñ ci yàlla nee na wa yuridu nañu namm an yu farriqu ñu tàqale bayna allahi diggante yàlla wa rusulihi ki bëgg a tàqale diggante yàlla ak yonent yi yàlla nee na kooku yéeféer la kon suñ delluwaatee ci aaya ba dañuy fekk yàlla bi muy wax ponki ngëm mu koy tënk ci benn aaya xam ngeen ponki ngëm juróom yi yépp ci benn aaya la nekk juróom benneel bi mi ngi ci beneen aaya al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bir rusul al imaanu bil yawmil axir ak al imaanu déedéet bil qadri mu ngi ca beneen aaya ba jàng ngeen ko léegi léegi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal muminun kullun amana billahi wa malaikatihi gis ngeen kullun amana wa malaikatihi wa rusulihi wa kutub gis nga aaya yooyu lu mu boole mooy juróomi ngëm yi ngëm juróom benn la soo ci bàyyee benn yéeféer nga yonent yëpp ngay boole gëm kenn du tàqale diggante yàlla ak yonent ah yàlla de moom moo wax li waaye nag ah yonent yi de moom ay nit lañ rek déedéet yàlla ni mu la waxee nga may gëmee noonu ngay gëmee yonent yi doo leen tàqale yemuñ ci sax loolu waaye wa yaquluna ñu naan nu'minu bi baad wa nakfuru bi baad ñun dañuy gëm ñuy weddi ñee loolu gis ngeen ko yahud yi dañoo gëm yonent yëpp ba ci Moussa ñu arrêté soo leen ne Isa ñu ne la doomu njaaloo la ñoom sax ñoo ko bëggoon rey ba yàlla yëkkati ko kaw asamaan histoire boobu ngeen dégg ñu naan dañoo rey Isa yahud yi la du nasaraan yi yahud yi la nasaraan yi tamit ñëw gëm ñëpp freiné ko ci Isa boolewuñ ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñoom ñëpp kat ndeysaan bi ñuy ñëw bi ñuy dem waxoon nañ ne kii mujj yonent yi mu ngi ñëw hatta Isa wax na leen ne Muhammad a ngi ñëw Ahmad a ngi ñëw wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu Ahmad falamma jaahum bil bayinat qaalu haza sihrun mubin ndeysaan yàlla wax na ci alquran yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum ni ñu xamee yonent yàlla muhammad noonu lañ xamee seen doom yi ni ñu xamee ne seen doom yi ñoom ñoo leen jur noonu lañ xamee ne muhammad yonent yàlla la waaye lan moo leen jàpp ak coxor ak réer ak coxor moo leen jàpp la tajidanna asadda annaasi adawatan lillazina amanu al yahud al nee na di nga fekk ki gën a bañ jullit ci àdduna mooy yahud mais xoolal loolu ñun gëmuñu ko waaw fii nii ci biir jumaa ji ñaata nit ñoo fi faral messi ñaata nit fii ci jàkka ji ñooy faral messi ñooy supporter messi messi messi alalam yëpp yahud yi la koy jox pour ñu pour ñu écraser jullit yi tiset bi muy sol bu dugalee biit ba pare bu simmee bu simmee mayo bi tiset bi lañ ci bind zem Israël loolu lañ ci bind waaw naka la ab jullit di gëmee loolu kon di bëggee ab yahud te dee ngeen yàlla lu mu ñu wax moo tax ñun xamuñu dañuy rajaxe rek di dem ñaata Messi ñaata supporter la am Sénégal ah ah kenn xamul lu mu toll est-ce que sax Messi gën a siiw Macky Sall Sénégal bu doon woote sax élection yaakaar naa mu jël réew mi day gis ay julli ñëw Messi président wallaay yal nañu yàlla jubal suñu borom ne gaañooñu wa yuriduuna bëgg nañ wa yaquuna ña nga naan nu'minu bi baat ñu de lenn ci yonent yi dong lañ gëm wa nakfuru bi baat dañuy weddi ñeneen ñi wa yuriduna ñu bëgg an yattaxisu bayna zalika sabilan loolu ñuy wax nag ñu ut ci prox ndoll ay yoon tariqan bayna al kufri wal iman diggante ngëm ak weddi wa laysa samma illa tariqun wahid wa huwa al iman aw al kufr ñaari yoon rek moo fi nekk yoon gëm yàlla ak yoon weddi yàlla waaw wahadaynaahu najdayni ñaari yoon yooyu rek ñoo fi nekk imma shakiran wa imma kafur da ngay gëm yàlla nga nekk jullit gëmoo yàlla rek yëféer nga amul beneen tribune bu fi nekk naan damay supporter ñaari équipe rek la waaw da ngay sol mayo rek dugg ci biir waaye non non man faruma damay supporter équipe yàlla rek wala équipe iblis ku nekk na xoola foo bokk sunu borom nee na ulaayka ñii hum bi damir la daf koo feddali su ne woon ulaayka rek doy na waaye mu ne ulaayka ñii nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yonent yi bëgg tàqale yàlla ak yonent yi wala gëm lenn ci ay yonent weddi ci ay yonent ba pare bëgg ci porox ndoll yàlla nee na hum ñii dëgg-dëgg alkaafiruuna ñooy yéeféer yi xaqan allahu akbar ci dëgg doyoon na rek yàlla mu ne ulaayika alkaafiruun waaye mu teg ci hum mu teg ci alkaafiruun mu teg ci xaqan pour wan leen ne dëgg la ñi ay yéeféer lañ bu fekkoon ne ay jullit lañ bu ñu jullee yàlla bëggatu ko bu ñu wooree yàlla bëggatu ko lu ñu mën a def ci diine yàqu na bu ñu bokkee feneen nag waxi noppi kon yàlla dañ koy gëm gëm yonent yëpp léegi nag xoolal waxuma sax yahud ak nasaraan mais ki gëm ne sëñ bee gën muhammad boobu lu ngeen koy àtte ba pare mu ne mu ne ki ko doon laaj la xam naa di nga ko génne sax waaye nag dinaa ko wax rek ku gë ah mu ne ki ko doon laaj laaj bi xam naa sax di nga ko génne waaye nag dinaa ko wax moo am ma ne sëñ bee dàq jaamu yàlla Muhammad laa wax Muhammad mii ñuy wax sëñ bee ko dàq jaamu yàlla ndeysaan ay waay Sénégal a neex rek moo tax foog ñu vérifier waat suñu pas-pas yi suñu xol yi li ci nekk li ci xol yi mooy génn ci làmmiñ yi mooy feeñ ci kanam yi te gis nga ñooñu di wax loolu soo gisee seen kanam yi rek xam ne ñi ay nitu safara lañ billaahi am na ñoo xam ne fii ci Sénégal seeni kanam du kanamu lislaam seeni jëmm du jëmmu lislaam seen baat du baatu lislaam seen tur du turu lislaam soo dara amul dara luy wane ne kii diine la du tur bi ku ngeen xalaat nag kooku la du tur bi du baat bi du jëmm ji du dara du tur bi dara nekku ci lislaam ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñi wax loolu ñëpp xool leen leen am na benn femme bu nekkoon fi tudd Modou Diaye Guirandou ñu dund tuuti ay at nekkoon journaliste ah ba retraité daan ne yonent la yàllaa ko yónni mu nekk ku jigéen loolu xale yi fekke wuñ ko ñun fekke nañ ko tuuti ah ak mag ñi fekkee nañ ko gis nañ ko balaa muy dee moom moo gën a ñuul këriñ billaahi wallahi taala moo gën a ñuul këriñ këriñ moom moo ko gën a ñuul gis ngeen kii ma leen di wax nii bu ngeen demee léegi ci Facebook bi bu ngeen ko gisee ak kanamam ku xam ne kii xam ne safara la jëm yàlla da lay lakk ci àdduna balaa mu lay lakk alaxira waaw am na ci ñoo xam ne boo waxee ñu ne non non non ñii xam nga rek mooy gars yi di daanu leer daanu ñu leer de dañoo réew waaw ku romb nit ñëpp dem ba ci Muhammad kooku du ay leer loolu moo tax nit ñi di def lu leen neex waaye ñu ne non dafa daanu leer waaw dafa am lu mu gis wala dafa am fu mu toll affaire yi ay degré la naan ba màndi rek jeex na wala tux ba ni kër di gis ay kii bëccëg ay étoile kon su boobaa après nga wax rek loolu kese la mais amul fi ay leer est-ce que mos ngeen gis saxaaba bu daanu leer wax leen ma ko wax leen ma saxaaba sàngam dafa mos a daanu leer amul 124 000 saxaaba yëpp yonent bi yar leen mosoo ci dégg ku wax yii ñuy wax fii ñun wala hatta yonent bi li liñ koy bëgg bëgg bëgg ñoom kenn mosul ñëw daanu ci kawam ne ko yàlla yàlla gaa yi jàpp ko ne daanu na leer allahu akbar xaleen ma kàlla waaye sëñ bi loolu waroon naa mën a am wala waroon na mën a am est-ce que gis ñu ci yonent bi duñ ko waroon waxee loolu wallahi gis nañ ko wallahi yonent bi won na leen ci jamonoom ay mbir yoo xam ne waroon nañoo mën a déborder mais non daf koy def ba pare ne leen yàlla la du man wa ma ramayta is ramayta walakin allaha rama ah jàng leen histoire yonent bi di ngeen ci gis yoo xam ne wallahi gars yi waroon na ñëw mën a ñëw sukk ci kanamam ne ko yaay borom jaam ñi waaye daf ko yàgg a dàq waa ji sax bu mu ñëwee song ko ne ko anta sayiduna yaay sunu sang wap nu sayidina bëgg a kraafa loxo yu mu xëcc loxo yi ne ko neel tekk ne ko laa tatruni kama atrati nasara ibnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluhu bu leen ma jaay de comme ni chrétiens yi jaye isa ba ne ko doomu yàlla la man duma doomu yàlla duma dara yàlla innama ana abd man jaam laa gis nga gaa yi teel a xam ne kii ab jaamu yàlla la lépp lu mu leen def daf ko def seen kanam ñu koy gis mu fexe ba tënk leen ci yàlla waaw léegi xoolal ñun fii waa ji day am ay taalibe mu bàyyi taalibe yi di wax lu ko neex ci jëmale ko ci moom ah kenn du ko weddi moom day toog sax gis taalibe yi di déborder du weddi kon ça veut dire que ànd na ci wala ànd na ci loolu moom moo ñu indil musiba moo tax jaami yàlla yi alku moo tax ñu nax doomi jullit yi dugal leen ci lëndëm jahannama boo xam ne ku ci yàlla yërëmul gis nga yii am Sénégal ku ci yàlla yërëmul doo ci génn ku yàlla xettaliwul caaxaan yii doo ci génn parce que dañ leen gëm loo ne mooy dëgg te du dëgg xam ngeen ne bu ñu gëmee ne Sénégal am na ko fi gën Mohamed loolu dëgg la loolu yëfër la ku ko su ku bàyyi nag sa doom dem dugg ci loolu gëm loolu ba dee ci lan la dee ci kéeféer la dee wala nit ku dund ci loolu ba dee ci lan nga dee ci kéeféer dong nga dee yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko borom bi nee na ulaayika ñii hum ñoom alkaafiruna ñooy yéeféer yi xaqan ci dëgg te man yàlla wa aatad naa préparel naa lil kaafina yéeféer yi azaban mbugal moo xam ne mu hiinan mbugal mu doyadi la gis nga ku nekk yéeféer yàlla lii la la dencal yaag yàlla amu leen lenn lu mu la dencal lu dul rek mbugal waaw mbugal mu doy waar mbugal mu doyeeti yàlla bàyyi na ñooñu alxuraan nii lay demee chaque jour day nekk waadun wa waid day dig xéewal waaye dige ay dóor basiran wa naziran day bégle di xuppe li mu doon wax aaya bu njëkk bi aaya xuppe la da doon xupp yéeféer yi balaa nit ñi di nekk ay yéeféer lii ñëw ci suuf xéewal la yàlla subhanahu wa taala di wax moom tamit ñi ko gëm mu ne wallazina gaañ nga xam ne comme fale rek amanu dañoo gëm billaahi yàlla wa rusulihi ak yonent yi walam yufarriqu tàqalewuñu bayna ahadin minhum diggante kenn ci ñoom walaayika ñii sawfa yutihim ujurahum gis nga ñële lan lañ am ba yàlla duma leen dañoo weddi yàlla weddi yonent yi bëgg a tàqale yàlla ak yonent yi wax ne ñoom sax dañuy gëm leen weddi ñenn ba pare bëggu cee wut ay porox ndoll yàlla nee na lii moo tax ma duma leen lii moo tax ma tàbbal leen safara ñii lan moo tax yàlla dugal leen aljanna dañoo gëm yàlla gëm yonent yi tàqalewuñu kenn jëluñu kenn teg ci kaw ñëpp ñoom ñëpp lañ gëm walam yu farriqu bayna ahadin minhum tàqalewuñu kenn ci yonent yi ñoom lan lañ wax kullun amana billah lépp la ñun lépp lañ gëm ñun gëm nañ ñëpp loolu mooy pas-pas bu wér pas-pas bu wér mooy li la yàlla gëmloo nga gëm ko li la yàlla weddiloo nga weddi ñi la yàlla bëggloo nga bëgg leen ñi la yàlla bañloo nga bañ leen la yàlla farloo nga far loolu mooy pas-pas bu wér mooy lan al imaanu billah gëm yàlla wu rusulihi gëm yonent mi bañ leen a tàqale bu fekkee ne def nga lii yàlla nee na ulaayika ñii sawfa yutihim ujurahum yàlla xalsan na leen a jox seen fay ba mat sëkk kaana allahu gafuran rahima wa kaana musta dañ te du dañ te buur boobu di allah gafuran di jéggale rahiman di yërëme léeg-léeg bu ñu jàngee ba yegg ci aay yu mel nii lan lañ faral di wax nanu bàyyi xel ay fu muy jeexee sunu aaya tey bi mu ngi jeexee wa kaana allahu gafuran rahima yàlla du dañ mukk te du mos a deñ di jéggale di yërëme soo bëggee njéggal yàlla nga bëgg yërmande yàlla nga dégg lii lu la war wuti ko yoon yoo mën a jaar ba yàlla jéggal la yoon yoo mën a jaar ba am yërmande yàlla nga def ko ndax yàlla nee na la man de duma ko musal ma ne yàlla bu doon jalla jalaaluhu su fekkonte na ku taxaw fenn di joxe rek la mu ne la man du ma fa sax jógee foofu rek laay taxaw ku ñëw fekk ma fa rek ma jox la te noonu la amee njëggalam moom yàlla ak yërmandeem du musa deñ ci nit ku y- ku bëgg ku ko bëgg kon ki bëgg yërmande yàlla am na sens ki bëgg yàlla jéggal ko am na sens ndax am na buur boo xam ne nee na saa yu fëggee bunt bi ñu ubbi ko jéggal ko yërëm ko wala yàlla nee na ki bàkkaaram fees ba toll ne vague géej vague géej xam ngeen ko ki bàkkaaram bëri ba toll ne peppi suuf ñooñu ñëpp dañ leen di baal seen bàkkaar est-ce que ñun tollagum nañ foofu kon te soxla nañ yërmande yàlla soxla nañ yàlla jéggal ñu amul mbindeef muy dox ci kaw suuf si asamaan di la tiim lu dul soxla nga njéggal soxla nga yërmande moo tax bu ñu dee lu ñuy wax allahumma igfir lahu warhamhu ñaar yooyu rek lañ soxla nit bu dee ñaar yooyu rek lañ soxla ci moom moo tax loolu la ñuy ñaan allahumma igfir lahu warhamhu waaye léegi nag yooyu sax kenn waxatu ko ku dee rek ñu ne ñetti xulwa fanweeri lixlaas juróom-ñaari inna ansalna ayatal kursi yu falaxeek naasi ndeysaan kenn du ne allahumma agfir loo warhamhu te yooyu yëpp boo ko jàngee ba mu jeex amul yàlla na yërëm waa ji na ko jéggal wala du yooyu la ñuy wax ci armeel yi ah yooyu rek la ñuy wax ci armeel yi jàng leen ñeen fukki xulwa xulwa bu nekk naan nag bismillahi rahmaani rahim sénégalais ñoo ñi ñu digëri fit nga fekk ki jàngale diini ji lu nekk mu ne lii la lu nekk mu ne lii la lu nekk mu ne lii la yow nga ñëw soxla dara ci loolu nga bàyyi lim defoon def naan fa leneen mi ngi mel ne ki bopp bi di metti rek dem pharmacie ñu bindal ko benn tablette paracétamol nu mu ko war a def ñu ne ko saa yoo demee naanal deux ci suba deux midi deux ngoona moom mu daal di ñëw daal di jël paquet paracétamol bi daal di koy takk ci bopp bi ba mu dëgër daal di koy kaalawoo ñu ne ko lii mu ne ah xam nga non day dem yow comprendre loo quoi billaahi dana dee du wér du noonu tubaab bi ko defar lan la wax da ngay naan yonent yàlla Muhammad la yàlla joxoon diine ji wala lépp nag la jàngale lépp looy aajowoo place bi nga koy defee yonent wax na la loo fay def est-ce que xam ngeen loolu ah lépp lu nu soxla ci suñu wàllu jaamu yàlla fañ koy defee yonent bi wax nañu buñ fa yeggee lii la ñuy def lii la ñuy wax lu ñuy ñaanal néew lu ñuy takkee sëy lu ñuy tuddee doom lépp lu nu war a def place boobu ñu koy def suñu bëggee mu am barke suñu bëggee yàlla nangul nu ko yonent bi wax na lii lii ngeen di wax nee na ñun buñ ko bàyyee gis ñoo xam ne nee na ñooñu ñoo gën a gaawale dañuy nax suñu bopp kon donc mbokk yi lii mooy sunu dars tey bu amee ay njuum te ñu ngi koy jéggalu sunu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay laaj